President Adama Barrow aye inauguration o kele marse kutola mi yalan ko min ko aɓe base bankola kan base ɗum base ɓe urr le woketa fennete mi yalan ko min ko as keta fennete mi yalan komin ko ñin na ñin it will actually create employment for so many people in different ways because business omo fennete mi yalan komin ko ataka banko samba ñin ñatole woto ma fala hi His Excellency President Adama Barrow and Alama Sakunda Mbal Tentula Mbal Jaila for that noble initiative. Bourguewel ak Linguère. ah wax yàlla nag soo demee ba base ne dafay ibi lu toll ni marse ah wax dëgg yàlla loolu moom sant yàlla la te xam naa ne waa base ñoom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, nekkul ne Banjul rek lañu war a développe mhm. développement ci àll yi sax sori ci baat bi waaye ci dëkki dex bi mhm, waaw ñoom ñoo ko gën a niit ñu ko gën a soxla mhm. li ko waral mooy fii lu mu boni boni boni am na yoo xamante ne nit ñi dinañ góor góorgóorlu ñu koy defal seen bopp mhm. waaye ñoom dañ ñàkk ndimbal ba tax na euh, nguur gi ñoom ñoo war a xar seen tànki tubéy boole leen ci dëkk bi keroog wax naa ko fi euh, bi ñuy wax affaire courant ñu naan lu toll ci ñeneen fukki dëkk lu fotti kon euh, gox yoo xamante ne amuñ courant. te dañ dañ leen war a join ci courant bi nga xamante ne nii. Euh, loolu lu lu waroon a am bu yàgg la. ya dafa dafa tuuti tuuti boo xamante ne développe ko dafa yomb. développe bi nag li ko mun na def mooy. ki nga xamante ne moom mooy njiiti réew mi. Euh, moom ñim fal. ñuy ay cabinet ministre. bu mu leen bàyyi ñu free. moom fu mu toll bu mu xaar ñooñu ñu ñëw nay foog seen bunt yi kum ci gisul ñaari fan mu oola foo toll loo def nii naa yow nii nga xam ne man kat sas bi ma enu dafa diis te ki ma ko en mayu ma jàmm loolu dina bokk tamit ci lii tax ñoom ñu gën a góorgóorlu ndax bu ñu la joxee tey thousand dollars yi nga jël eight hundred bi def ko sa poos two hundred bi nga ne moom ngay liggéey Mr President fu mu di la kool li nga xam ne man kat eight hundred bi suma poos waruma ko lekk pour bi la waaye bu ñu la joxee liñ la war a jox nga toog wéeru xooluñ la lijante la waxuñ la dara ba bés ñoom ñu ne dañ laa edit ngir ne yow lekkoon nga fi nangam fekk loolu lekk nga ko ba mu jeex. kon nag ñu ngi koy jaajëfal ci li nga xamante ne nii moom la dem def fële ci diwaani Basse man moom xam naa kontaan naa ci waaye waa Basse ma gën a loolu moom kenn werante wu ko. ñu fait bu baax le président Baro def ci te am maquette bu baax bu rafet bu il mhm. te kon ko Ah, ba pare ci seen information bi tamit am na loo xamante ne wax nañ ko foofu noonu I believe it will be important for the Gambian people xam nga ñu xam ah, the amount of money ah, boo xamante ne loolu la gars yi use xam nga to actually build that market for the people of URR I can say Basse mu nekk 112 million million that is the amount of money ye kodo may use atata fo ñing 112 million andum fanan do ko ñin tatale one year four months e ka fo komin ko 16 months am um, nyin do ko nyin kata nyin a wo bi chola kono fo do ko nyin banta kata kudi mi yalan komin ko nyin do ko kuma balan ina ta kaytande nyin nyin gambe no la fanan komin ko ye bitikol looje la bitikol mi yalan komin ko atata fo a ñin bitika ñin keme fula bitika tan naani ani wooro andum fana ye dulala fana ñin ye fula uh, ñin fula la soto marché ñin kono inata a ndi mol la fanan komin ko ye dula naani fana de dala mi yalan komin ko aɓe kala musol ñin la dulal ti mi yalan komin ko ke la e waafi isaje i fana sa dubeŋo soto no mm o keta fenti mi yalan komin ko fala President Adama Barrow, it is under your leadership that uh, this great initiative actually uh, came to the Gambia because when we said Basse, Gambia lañu wax. dëgg dëgg definitely kon nag ñoo ko déggandoor waa Basse gën leen ay jooy li nga xamante ne nii mooy seen soxla. Mm-hmm. jàmbatu leen ko ñu defal leen ko. comme ni ko yeneen ak yeneen ak yeneen ak dëkk di ko defee. wax leen li nga xamante ne nii loolu ngeen bëgg président bi li ko ñor mooy liggéey réew mi. Mm-hmm. moo tax ñu teg ko fi xam na ko te mu ngi ci kawam. kon fexe leen ba wax ko seeni mbébét moom i tamit mu mën leen koo defal comme ni leen defalee marché boobu noonu ci diwaanu base um, hello. Mm-hmm. waaw loolu am na solo trop loolu laay wax nag ma ne diwaanu base dañu war a sant because of marché bi tàkkoon na